Cheikh Ibrahima Fati ndaamal daaru ci bisam bu tedd bii nga xam ne àdduna bi ñëpp ñëw nañu di ko dundal si fii ci Daarul Muxti muy bis boo xam ne nag lislaam moo ko yàgga fonk yàgg koo dundal ndax dafa dëppook nisfu saaban nisfu saaban nag di fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu nga xam ne bu weer wi wéyee ci lañuy dugg ci weeru koor muy bis boo xam ne euh, lislaam Euh, yàgg na koo fonk Serigne Touba sax bind na ci ay way yoo xam ne yallaahu yaadal man ni di wax ne bis la boo xam ne ku ci jàng ñetti yaasin waaw guddi gii guddi démb gii jàll ku ci jàng ñetti yaasin benn yaasin bi mën nga cee fas euh, fan wu gudd beneen yaasin bi mën nga cee fas am ba doo soxlaal kenn beneen bi it mën nga cee fas mucc ci balaa yi kon bis bu tedd la Euh, dëppook nag euh, bis bi nga xam ne moom la ñuy màggalal Cheikh Ibrahima Fati ah dajeem ba nga xam ne daje woon na ko ak Serigne Touba Khadim Rasoul gannaaw bi nga xamee ne moom la jóge ci géej gi maam Thierno Birahim nag doy na sëkkoon rek bokk gi nga xam ne bokkoon na ko ak sëriñ Touba wenn waajur muy Serigne Mamour Anta waaye it Cheikh Ibrahima Fati dafay ñaan gu nangu ci sëriñ Touba ndax wax nañ ne bi mu ganee àdduna. sëriñ Mamor Anta ci jëmmi boppam moo wax sëriñ Touba ko suñu borom nangu na ñaan ga nga xam ne moom nga doon ñaan sa borom suñu borom nangu na sa ñaan gi ndax ki lay dimbale ci sa liggéey bi yegsi na te kooku mooy Thierno Ibrahim sëriñ bi it daana ko wooyee sama loxol ndeyjoor joor daana wax na ne Ibrahimu alladi yu yuxaalif nii fi sigarihi wala fi yi ne musta tàqalikoo ak man musta wuute ak man ci ak ndawam du ci ak magam am na it ay abyaat yoo xam ne shahadaat la yu leer yoo xam ne shahadaat xadimiya la ci maam Cerno Ibrahima Faati sëriñ bi waxoon na ko ida ataaka adudi kitaabi kitaabati fa karrimil kitaaba bil mataabi layin lisaanaka wa qalbaka maa lil muminina xayra xayrin tajmaa foofu da nga fay gis baatub adudi baatu adudi nag wala adut muy ab përëg ku na xam ne ne përëgum day joor loo ama ama am solo la ci nit loolu sëriñ bi di ci misaal rek maam Thierno Ibrahima Faty fi nga xam ne féete na ko fi waaye doy na sëkk rek tuddeewu ko ko noonu rek waaye jëfe gi nga xam ne daf koo jëfee ndax ku ne xam ne ne diggante sëñ Touba ak maam Thierno boo ko dee waxtaanee bokk na ci li ngay njëkk xalaat mooy matalu wóllëre gi nga xam ne ah, ah Cheikh Ibrahima Faty mataloon na ko wóllëre ci Serigne Touba ndax sëriñ bi bi mu dem ci géej gi moom la dénk njaboot gi ne ko sama njaboot gaa ngi Thierno téyel ma leen foo ma leen mën a dencal ci Sénégal ba ma dellu si ak jàmm ne ko damay liggéey sama borom rek. déwuma damay dem liggéey li sama borom te dellusiwaat ak jàmm loolu it dafay misaal nag ah ñi nga xam ne dañuy jaay seen bakkan ngir jëndee ko ngërëmal yàlla ah Cerno Ibrahim dañ koy mën a misaale ak Seydina Aliyu karamallahu wajhahu diggam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi ah, Seydina Aliyu dafa bokk ak moom lépp waaye nag daa jël mbokk googu jaay ko jënde ko ak taalibe jaayante ak moom ku ne xam ne ne wa min annaasi man yashri nafsu ibtigaa mardatillahi wallahu raufun bil ibad aaya boobu bi muy wàcc njàmbaaruk Seydina Aliou moo ko tax a wàcc Seydina Aliou it ku ne xam na ne am na bis yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na barab boo xam ne boo fa fanaan noonu noonu danañ ko fa fekk keroog Seydina Aliou la wax ne ko fanaan fa mu fanaan fa ba moo dëppoog gàddaay gi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon gàddaay waqaytu nafsi xayra man wati alxasa wa akramu xalqin taafa bil bayti walxajar wa bitu uraai minhum ma yasuu nii waqad sabartu nafsi ala alqatli wal asar loolu ay way la yoo xam ne wa baata rasulullahi fi lgaari aminan wa ma daala fi xifzi alilahi wa fi satar loolu ay abiyat la yoo xam ne Seydina Aliou moo ko wayoon di dëggal fanaan gi nga xam ne fanaanoon na ko keroog ci barab boobu nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam boobu fanaanoon ñu pexeel ko waaye loolu yëpp nag dafay dëggal it ah aayab alquran boo xam ne boo demee suratul raad da nga fay fekk suñu borom di wax allazina yuufuuna bi ahadillah wala yanquduuna al misaaq damay wax ne alladina yufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna al misaaq mën nañ cee misaal Cerno Ibrahima Faty ndax maam Cerno mbooleem ak matal kóllëre goo xalaat rek ak mu mën a toll matal na ko kóllëre ci diggam ak Serigne Touba alladina yufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna al misaaq walladina yasiluuna ma amara allahu an yusala bi an yusala wa yaxshawna rabbahum wa yaqaafuuna suu al xisaabi wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayya ulaika lahum uqba dar aaya bi boo ko seetalee da ngay gis ne julli dëgg nii lay mel waaye Ceerno Ibrahima Faati da nga ko fay fekk muy matal ak kóllëre allazina yuufuuna bi ahdillah wa kóllëre suñu borom gi duñu ko duñu ko firi sëriñ bi kóllëre gi mu jëloon jox ko Ceerno Ibrahima ba mu demee ba del si daf ko wax ne ko Ceerno lay lii ma la dénkoon ndax man su fekkoon ne man maa toog dinaa ko mën a defal dinaa ko mën a def nii nga ko defee maam Thierno gannaaw bi fi sëriñ bi jógee ñim fi defaraat ci ay nit kenn xamu nu mu toll sëriñ fallu sëriñ Modou Moustapha wax nañ ci ay nettali yu siiw a ne suñu suñu suñu baay Thierno jàngal nañu bañ ne ar ñu bañ ne nër yaakaar naa ay kaamil yi Thierno kaamil yi euh, sëriñ Fallou ak euh, sëñ Modou Moustapha gannaaw bi nga xam ne ci la sëriñ bi ne ci géej gi ci lañ ko bind. loolu yëpp nag dafay misaal euh, ki nga xam ne moom la sëriñ bi dénk mat gi mat liñ ko dénk Cheikh Moussa bi muy way dafa wax ne ma jéem a lim li Ceerno Faati seexal la wax ma jéem a lim donc kon ma jéem a lim xam nga sëñ Musaa Ka dafa dégg ma jéem a lim gi lim ci misaal mooy nekk na lim bu takku boo xam ne day waye waye waye waye ba doyal waaye du ko mën a jeexal moo tax daf ne ma jéem a lim li Ceerno Faati seexal te lu ma lim lim du tax ma jeexal Aliou Diouf Lambaye ma Paate Silla Cheikh Bamba ne maam Ceerno am na fulla Serigne Matar Gueye Hassan Gueye Massamba Gueye Moussa la Fenc Gueye Gueye donc boo xoolee ni sëñ Musaa Ka waye da ngay gis ci biir way yi ne ah Thierno Ibrahima kat ak njàmbaar gu rëy rëy moo nekkoon ci moom ah goo xam ne doxal na ko gannaaw diggam eh, gannaaw bi nga xam ne bi ko fi sëriñ bi bàyyee. beneen bi ci topp it mooy da nga gis ne ah, ku koy way faaw nga way ak njàmbaar waaw ke faaw nga way ak njàmbaar munoo way rek ah, te tu eh, Thierno Ibrahima te doo tudd ak njàmbaar sëñ Moussa Ka am na fu mu koy wayee foo xam ne dana ñemee ñeme ba mel ne ak gar la wax te far ragal yàlla ba mel ne bàqaar musul la rët musul la tiit du jaaxle musul fi ko kalaame bor moo baax le donc boo xoolee way yooyu it da nga ciy fekk ak ñeme waaye ñeme gi yóbbu ko ci tax muy jël yëfi jàmbur yóbbu ko ci tax muy fekk ku toog mu dal sa kaw waaye ci lim ko yóbbu mooy ci ragal yàlla moo tax mu ne dafa dafa wëlbati ko daanaka dafa ragal ragal ragal ba mel ne bàqaar mooy diggam ak yàlla ni mu ragalee moo tax muy wax waaye nee na it lu mbir am am ak lu mën a lu nit tiit tiit nee na du rët fa mu toog lay toog musee fu ko kalaame bor maam Thierno léppam dafa baax yaakaar naa bi tubaab bi de yable Daaru Marnaan ñëpp dañoo daw kenn ku ne wut foo laqatu léegi na am na mag moo xam ne sax dafa wax ne ngeen ne Thierno moo nga Daaru Marnaan ñoo ko ko Thierno moo nga fa mu ne Thierno daal dëgg-dëgg rek moom moo ñeme ab tubaab waaye doyoon na sëkk it ah ci bi muy gane si àdduna fekk na sëriñ mu mag bi di jàng alquranul karim ba toll ci aqi Haruna huwa afsahu minni lisaanan fa arsilhu ma'i riddan yusaddiqni inni aqaaf fa arsil fa arsilu maay riddan inni yaqaafu an yukadibuni ah loolu yaakaar naa lu leer naññ la muy diggante Haaruna ak Moussa ñi koy way ñëpp ak ñi koy misaal danañ misaal Ceerno Ibrahim diggam ak Sëñ Tuubaa di ko misaal comme diggante Moussa ak Haaruna kon nag loolu lépp dafay tegtale ak njàmbaar goo xam ne Ceerno Ibrahima ah, doxale na ko diggam ak Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Diop al Mashaari bi mu koy way dafa wax daa way ne maa in nuridu maa in nuridu namuda namudajan fi xislatin illa wa nulfiha lil abaay loolu leer na waaye dafa dema dem ba ca mujj ga mu ne aw hal yu daani ibra faati bi ilmihi wa salaati wa yumnihi wa dakaay ñim lim tudd na fa euh, sëriñ daam abdourahman lo tudd na fa ma samba diop sam tudd na fa sëriñ daara hasan diaye tudd na fa a cheikh ibrahima fall waaye nag fa mu mujjee dane aw hal yu daani ibra faati bi ilmihi wa salaati wa yumnihi wa dakaay ndax ko mel ne cheikh ibrahima faati am na ci xam ci ci julleem ci ak tabeem ci ak sellam ndax moom sëriñ bi dafa doon wax ne ñaar yi nga xam ne ah ñu bari baaxuñ ko boole mooy xaqiqa ak sharia Ceerno Ibrahima moom la boole. am na naaru gànnar boo xam ne ba mu ñëwee sëriñ mag bi dafa wax ne ko daal fekk naa fa dong yu bari waaye ka ñuy wax Ceerno daal moom boole na lépp xaqiqa ja daa mat sëkk sharia ja mat sëkk dara am ëpput. waaye himma ak yitte jure ji nga xam ne amoon na ko ci liggéey daaru gi 1912 la ko sanc bi mu koy sanc ndigalu Sëriñ Tuubaa ko sancee ndax damay fàttali ne maam Thierno musula am kër bi fi sëñ mag bi di nekk lépp mosula am kër këri sëñ Touba rek la daan dëkkee fépp fu mu mos a dëkk këruk sëñ Touba la ci 1912 la ko sëñ mag bi bind ab leetar xamal ko ne ko boromam gërëm na ko ne ko na sanc daarul moxti leetar boobu ba mu ko koy bindee lam ca wax waxi sëñ Touba la dane mata taqaw aynuka ala wa bi annahu taalibun min allahi tabaraka wa taala maa yaxbituka fihi jamiu amthalik fatim nafsan wa qarri aynan wala tashukka fi kawni hada min rabbika ilayka bi wasitatihi wallahu ala ma naqul wakil loolu waxi sëñ Tuubaa la ne ko mbind mii nga xam ne maa ngi koy bind saa su ci sa say say ba tabbee na nga xam nanga am yaqin ci ne ki nga xam ne moom moo mbind mbind mi ku la ngërëm la ku gërëm la ngërëm loo xam ne ñàkk gërëm du nekk ca gannaaw ngërëm loolu te nee nag mu ngi lay sàkkul ci suñu borom loo xam ne sa sa am sal yëpp danañ la ci danañ la ci ñee te na ko nag na na nga dalal sam xel te bul am looy sikki sàkk ci ne ngërëm lii ci suñ borom rek la di la jógee jaar ci yonent bi alayhi salaam jaar ci man te loolu suñ borom seer na ko kon kooku mooy Ceerno Ibrahima Faati ku ko tudd da nga tudd ak njàmbaar aqil waasiqi am na koo xam ne ba mu koy way dama xamul sëñ Maxtaar Bintu loola baharul ulumi yu mel noonu lay wax nga xam ne ku koy tudd rek faaw da nga tudd ak matal rek ak njàmbaar doyoon na sëkk rek Serigne Touba Touba bi ak seenu caay-caay ak ni ñu meloon euh, biñ ko jëlee yóbbu ko kum kum wóolu ba bàyyi la gannaawam sab toogin nga toog toog toog toog ba sëriñ bi fekkaat la fi te boo bàyyi atam boo ko dee lim ci at yu ñu yor dong la toll muy fanweer ak ñett kooku mooy Ceerno Ibrahima Faty ak njàmbaar ci moom la fekk baax Hamidul Xisaali sëriñ Fallou bi mu koy way dane ataytu ila almitai fi daarihi almuti li yashfiya shakwa alqabdi euh, minniya bilbasti waaye Hamidul Xisaali la wax waaw koo xam ne ab tab la woon loo ko ñaan mu may la saabitul ja si amatun xalifu nada fi xaalatay xis bi wal xaxti waaw ku mu ñeme woon la ku mënoon a maye la ku tabe la am na naaru gànnaar boo xam ne sax wax na ne law la tayaqun bi annahu yurdihim ne ñii ñëw ci Ceerno bu leen wóoroo ne bu ñu fa ñëwee du leen dimbale duñ fa ñëw maam Ceerno Ibrahima Faate ngoog naamal daaru yàlla na borom fayal bisam bi tey mu ngi nii nag ñuy ñaan mbooleem ñi fi ñëw aaju juñ mën a indaale yàlla na leen ko suñu borom saafaral ci barkeb ku tedd ki nga xam ne moom la ñu màggal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kullu am wa antum bi alfi xayr ñoo ngi euh, nuyu ñëpp mbokk mbokk yi nga xam ne it ñoo ngi baaxoo di ànd ak euh, Tawfekh Production ci àddina bi fuñ ñu mën nekk ñoo ngi leen nuyu te di leen siyaar tey rafetlu seen taxawaay di siyaare mbokk talibé yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et de suivre avec nous l'actualité nationale internationale.